waaw ah, kay salaamaaleykum wa rahmatulah alaaji Babali galaaj gu ñuul ah galaaj gu ñuul de euh, njëlbeenam baaxut diggam baaxut mujjam baaxut galaaj gu ñuul moom boo xoolee ni ko mag ñi euh, amee woon ak ni ko mag ñi daan jëfandikoo fu mu toll ni loolu wàññeeku na par rapport ak léegi ndax mag fañ daan wax góor fay të waaw waaye nag dëgg la góor fay të waaye lu bëri manqué expérience daf cee bokkoon lu bëree bëree bëree bëri manqué expérience foo ci bokkoon waaw ndax tey bu njëkk daan nga gis mag moo xam ne faran bay ba nawet wàcc ca jamono moo xam ñaar fukki junni ci poosam dugg réew mi xàll bi da ko wutee gàllaaj da ko gàllaaj ba loola jeex mu ñëw toog. gàllaaj goo xam ne nii doo mën a xam doom loolu loolu xamoo fa nga ñàkk am gàllaaj goo xam ne nii nit du man ci yow dara waaye dépasse fa lay të xamoo fa nga ñàkk ah loolu la woon rek ñàkk xew la rek waaye fu ñu toll nii waaye fu ñu toll nii am na ci ñoo xam ne nii lii seen maam yi bàyyee nañ leen ko lii seen seen bàyyi bàyyee nañ leen ko muy loo xam ne mën naa tas réew waaye duñ ko ubbi sax da ko xool ndax jaralul leen ko waaw seen objectif leneen la waaw waaye du gàllaaj ko ko waaw ni ñi fuñ ñu toll nii yeewu nañ ci yu bare bare bare bare bare bare bare mag ñi am na genn ndomb guñ daan amé ndomb gogo manam euh, daan na am fukki mbakan ak juróom-ñaar ndomb gogo boo ko maanaam boo ko xamee waan maanaam bu ko jigéen gisee sax fay tuur dàmm xam loolu baaxut waaw waaye musiba woo mën a def itam kenn mënu ci yow dara euh, xale bu jigéen bu ko bu ko gis xale bu jigéen bu ko gis dana dem ba nga xam ne ni jëkkër fa koy të jigéen juy sëy ju ko gis fay tuur dàmm ndax loolu ngëneel la mag ñi li xamoon ci gàllaaj mu baax am na si yoo xam ne fañ ko daan wax wallu mag wallu mag loolu ak ndomb la woon gu mag ñi daan defar nga xam ne nii foo loo jaaxle yu bare bëree bëree bëri yàlla mën na la cee dimbale. gune yi am nañ leneen lu ñu gën a dëgmal kaaraange daal mën nañ koo wut xalal itam teg nañ ko seen kanam waaye loo ñuul moom ndax gàllaj gu ñuul xaanut ak xam-xam gàllaj gu ñuul moom moom moom xaanut ak xam-xam ndax te gune yi léegi xam lañ bëgg. waaw te galaaj gu ñuul moom képp goo xam ne dégg am na galaaj gu ñuul bañ koy coowee moom ci boppam sax ay mbiram moom fa koy të boobu xëpp na waaw mag ñi amoon nañ am na genn wontaay goo xam ne nii mag ñi daan nañ ko liggéey lan liñ liñ ci liñ li ci daan wax mooy defal lu neex waxal lu la neex loo dugg génn ci jàmm xool xoolal loolu <laughs> xam nga loolu kéemaan la defal lu la neex defal lu la neex waxal lu la neex loo dug génn ci jàmm xam nga ne loolu loolu loolu buñ ko joxee saare Aliou Dramé gi xam xam ne ni jubuñ danañ tas réew mi loolu tey tey bu ko ndoxum moo lay woon dana ci xupp ñëpp waaw bon nag ah yàlla bëri na sutura amul li nga wax noonu de dëgg la mag ñi de balaañ ko daan laal yaaw sëf la daan waaw yaa fa sës nga xam ne ni xamuñ fenn fu ñu xaw benn dëkk bu ma ko waxoon ñu bëri danañ ko xam genn kilifa nekk fa ca jamonoy mag ñi ñu xamee woon bot ca gouvernement heure bu ne waa ji da ñëw rek da leen xaawi da leen tooñ da leen xaawi indi baatab tooñ sax da leen xaawi da leen sonal rek te booba jamono neexut mu sonal leen lool heure bu ne mu bu ñëwee daal mag ñi dafut fu ñuy làqatu ñi dafut dugg ci ndingal ngooñi genn fekk genn góoram fa genn góor gi ne a ah, ndax fas ngeen xëy na fay ñu ne ko waaw muy leen a ah, man de lebu ma woon waaye nag mën naa leen dimbale ba nga xam ne nii ku ku fas yéene fay mën naa laa dimbale. ñu ne ko waaw muy leen ñu ne ko nag fu ñu toll ñun ñu luñ fay xamuñ luñ lekk sax mënuñ ko xam. muy leen waa baax na góor gi wax ak oto ba oto bi départ bi oto bi départ mu mu mu am lu mu bind ci pono oto bi mu yor bi bi waa indi woon oto kii ñëwoon daleen fay ko ci bor ànd ak takk dere yooyu mag ñi da daw bi eh, góor gi jógee jonkan jël eh, paaka bi mu xamee bind ko ci oto bi tibb ko bi mu ko tibboo jéer eh, ko rek maa ëf ko mu dem muy leen ku ci fayut fii da nga fay yomal xiyaam waaye fii moom seen tànk dootu fi taxaw incha allah xam nga kooko jaaxle ko taxa def loola ak dimbale nit ñi looloo la. yaa man de gàllaaj gu ñuul moom li ma ci am. sama diggante Kya Diagne ci laa koy liggéey waaw sama diggante Kya Diagne daal moom moom bañ ma ci gàllaaj gu ñu loo xam ne kay moom incha allah moom dee léegi wala yoom léegi rek takk la xalaat nangu sa jabar naam mbaam man li ma la wax noonu ci laa ne rek gu ñu kay li ma ci am Kya Diagne laa ciy jëflante waaw daw ma ci dara nag xam naa ci am na am na lu ma ci am waaw waaw gàllaaj gu ñuul kay bu ma leen xam naa ko sax war nga ko gëm waaye Kya Diagne laa ci kenn du ma ci jëflante kenn ku dul Kya Diagne Kya Diagne daal laa cay jëflante waaw gàllaaj gu ñuul daal amul seen waa ji rek laa cay jëflante jëflante wu ma ci keneen bu ci kenn ñaaw njot ku dul Kya Diagne du ma jëflante ak sama gàllaaj gu ñuul waaw ñu ngi lay ziar mbaa ngeen jàmm ni yaay loolu de dëgg la moom gàllaaj kii am na de sama maam seen nijaay mu ngi amoon tulum goo xam ne nii bu la ci ro joxee loo romb xool te gerte nga naan ko boo ci rombee loxo boo ci rombeel lu boo ci rombeel lu romb xolte gerte doo am doom te loolu tul la te tul googu itam noonu la xabtal la fu toll nii boo gisee nit wala nga gis deret wala nit ku yore ngànnaay nii yow yow yow yow yow yow paaka ngay xokkee sa bopp yow waaw paaka paaka ngay xokkee sa bopp moo tax euh, gàllaaj ku ku ne ku ne xamul rek euh, sa tànk guddut wala nga bëri woo xam-xam waaw wala